asalaamaaleykum euh, Elage Aliou euh, maire de la commune de Kayi euh, tey nag moom dañu daje woon pour joxe fourniture yi c'est vrai fourniture yi disponible mais le yàgg mais euh, problème emploi du temps lañ amoon ñu jàpp ko di ko fomm ba sax lañ ko mais finalement IF woote tous les directeurs du département donc loolu moo tax tey ñu indi ko ba ji euh, tay nak euh, ñu ngi doon recevoir euh, les acteurs de l'école élémentaire ci ay fournitures yo xamné non seulement dem na ci élèves yi parce que l'élève c'est la centralité mais aussi ñëw na aussi ci kat yi ci seeni matériel yi nga xamné war nañ ko utiliser ci salle de classe foog naa ne gis ngeen lim bi lim bu takku la waye aussi euh, këy xam nga depuis ñu ñëw fi ba légui 2022 ba légui dañoo dem ci équité équité moy lool motax euh ñu am ay dara aussi euh, suñ première année ñu ngi won ci 52 dara sunu deuxième année ñu ngi ci 56 dara ren ñu ngi ci 66 dara yo xam aussi dañ leen di jël en compte ci fourniture à côté de ces écoles euh, coraniques nous avons aussi les écoles arabes qui sont au nombre de 42 ñooñu tamit ay ndaw lañ euh, donc mérité nañ bokk ci euh, li nga xam ne moom la moom gox bi di joxe donc 42 écoles arabes yooyu aussi ñooñu dinañ leen jox seeni fourniture ma rappelé aussi que ni Soufou kay aussi am nañ ci juróom-ñaari mahat c'est le CM ou lycée en arabe ñooñu tam di leen ci bàyyi xel comme ni ñu ko doon defee chaque année waaye am nañ fi aussi ay CM

pour nous génn nekk ay infirmiers wala ay sage-femme loolu tamit mairie bi moo ko jël en compte ci formation Nous avons aussi les étudiants yi nga euh, ils auront ci fan une enveloppe de 2 millions boo xam dañ leen ko parce que aussi des dogal étudiants dans les différentes universités il y a aussi des associations de développement Nous avons fait ñu ngi fii di

taw yi bu arrêté wu duñ mën a duñ mën a ubbi tey jàng tey loolu tamit ñu ngi ci lancé un appel à l' état au ministre de l' mu gën ñu ci jàppale. état nag euh, commune bi nag mu ngi def ay effort fi may waxee yow nii école këy bii nga xam ne mooy siège bi les quatre salles de classe ñu ngi koy réfectionné. à Ngodiba on avait réfectionné trois salles de classe à Afet Tidiane on avait réfectionné deux salles de classe clôturé nañ l' école de de Ndoj. Nous avons clôturé l'école de Diaglé pose première pierre pour euh, la construction du mur de clôture de l'école de Lougué donc ça c'est des efforts que mairie mairie puisque l'école c'est l'école de la communauté aussi loolu communauté population yi mairie que nous parce que enseignants ci classe préparatoire yi seen salaire mairie moo koy fay euh, am na beneen boo xam ne ñu ngi koy wàcc ci Affe Tidiane mu nekk juróom-ñaari enseignant yoo xam ne mairie bi moo koy fay mooy fay salaire yi donc euh, wax dëgg yàlla euh, xalangu dajul suuf nag waaye des efforts de gros efforts sont en train d'être consentis par la commune vraiment pour njàng mi njàng mi jëm kanam waaye ñu ngi gën a tàllal loxo daal le ministre de l'éducation mu gën ñu jàppale ci BCI pour ñu am am salle de classe yo xamné ne am ay abri provisoire war nañu ko tabaxal y a d'autres écoles qui n'ont pas de clôture war nañ sécuriser les enfants et les enseignants donc loolu yop dal euh taxna ba euh, vraiment ñu ñu ngi gor dal le coût global euh, bi jëm ci école arabe yi ak ci daara yi ak ci euh, ak ci école française yi mu ngi ça tourne autour de 15 millions. 15 millions ce que je wax 15 millions. parce que la formation si nga mais c'est une somme colossale Si ñu 15 millions yi euh, subvention yi pour ndaw aussi euh, donc beaucoup de 15 millions yi waaye qui jëm ci arabe française yi ak ci euh, ci nous avons autour de 15 millions yoo xam la mairie l'a dégagé pour ça Nous ñu ngi wut aussi ay partenaires l'ONG de Cheikh Ibrahima Ba Al Khalifa maye nañu kaamil yu bëri pour daara yi euh, secours islamique aussi may nañ ñu ay jumtukaay yu bëri yoo xam dem nañ ci daara yi ngi aussi ay balu fëgg jaay sax pour daara yi loolu yop xam nga daanaka du bokk doo bolé sax ci sa global bi nga xamné moy 15 millions donc daal loolu moo ñu fi moy li nga xam ne moo ñu fi dajale woon tey